tamxarit euh, la ñuy wax te mooy ñuy wax taasuwa ak asura bu ñu ne taasuwa mooy fin d'année bi bu ñu ne asura bu ñu mooy doon le premier janvier par exemple kon talaata mooy le premier altine la at mi jeex mu bëri nag ay ngëneel lool sëñ Saaliw ngëneel ba ci jëkk bokk na ca woor su fekkee da nga bëgg a woor altine bi muy neuvième jour bi kon yaa ngi koy yéene dimanche boo xëyee altine nga woor bu fekkee ne da nga bëgg a woor euh, le premier bi muy ashura bi kon yaa ngi koy yéene altine ci guddi boo xëyee nga woor euh, talaata ji kon ñaari bés woor ko baax na lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam nettali ci téer yi wax ni wax na ni euh, asura boo ko wooree mel na ni woor nga fani àdduna bi yépp waaw mel na ni woor nga bés yi ci àdduna bi wax na it ne boo ci saraxee nit dimbali ci ko néew doole mel na ni dimbali nga woy laaj yépp ñi yelwaan ñëpp dimbali nga leen doole dimbali nga leen euh, bokk na ci ci digle itam euh, julli ñeenti ràkka benn bu njëkk bii da ngay jàng faatiya fukki xulwa ak benn bu ñaareel bi it faatiya fukki xulwa ak benn nga taaye indi yeneen ñaar bu ne faatiya fukki ak benn baax na lool yaa ngi koy def nag ci bisu euh, talaata ji parce que altine la at muy jeex waaye li gën a am solo euh, ci at muy jeex mooy euh, xasan nga càmbarli li paase parce que man kat at mi bi ma déparé ba tey lay jeex ci altine ji lay war a jeex suba war a doon sama ma war a commencer at mu bees léegi nag da ngay inventaire xool li nga dund ci at mi ci rafet seet li nga dund ci at mi li ci ñaaw seet li nga wax ci at mi li ci rafet seet li nga ci wax lu ñaaw ak li nga ci dox nga sante yàlla li rafet jéggulu ko li ñaaw koo cooreel àq nga dem jéggulu ko parce que àq mën na gàllankoor ci lu ne parce que ñetti mbir rek moo am àq fi ne muy droit ak bàkkaar ak bokkaale bàkkaar mooy li nga def yàlla tere la ko kooku moom yàlla mën na la ko jéggal àq mooy li nga ma yoreel kooku yàlla du ko jéggale man maa la koy jéggal bu fekkee ne nag bokkaale la moo ko doon leeral mooy jigéen ju am jëkkër ba pare daal di am far kooku benn góor du ko pardonné jigéen donc loolu moo ci nekkoon muy bis yu am solo ñu càmbar nag li ñu dund mu wees ñu xam li ñu ci def ci lu baax xam li ñu def ci lu bon su ko defee ñu jéem ko jéggalu suñu borom bi subhanahu wa taala jéem a def lu baax bi ci des muy asan taajaboon yi ñuy wax di ko ci def nga xam ni euh, taajaboon du baatu olof baatu arab la mooy taajaboo bi firi yéemu leen waaye yéemu leen buñ net ñi naan taajaboon wóol lay déedéet taajaboon taajaboon lillaahi waaw bu ko defee loolu nekk lu am lu ñuy def ci dëkk bi bokk boole ci sàcc boole ci àqu dëkkandoo dëgg mee fecc mi yooyu yëpp nekkul lu diine nangu waaw ah, parce que sàcc bokkul ci diine diine moom yàlla bañ ne ba ne ko sàcc nañ dagg loxoom tooñ it bokku ci ko defee ñi ne ci mbedd mi tooñ yuuxoo dëkkandoo yi nga lor leen jël alalu jàmbur yooyu yëpp bokku ci góor ñi sol yëre jigéen jigéen ñi sol yëre góor yooyu c'est interdit ci si wàllu charia su ko defee loolu nag di ko bàyyi xel baax na kon ñu ngi jëm nag jeexal nañu at yéen ñëpp na ngeen bokkandoo xool li ngeen dund li ci rafet alhamdulilah li ci ñaaw ñu jéggulu te fas yéene nag at mii ñuy dugg bees muy at moo xam ni dañ ci fexe ba suñ lu baax gën cee bëri euh, bi ci des euh, Assane euh, boo seetloo ñun dañuy jël at muy jeex ñu fo ko léegi la ñu reproché ko sax suñu mbokk yeneen diine yi naan ñun suñu yoon nekkul ci nangam ak nangam te ñun suñu bos a gën a garaaw parce ñun bu dee ñun la tey altine bi nga xam ne moo nekk euh, ci la at miy jeex ci la at jeex luñ koy jeexale tëgg fecc jigéen niru góor góor niru jigéen sàcc tooñ tànqal nit ñi jël alalu jàmbur loolu amul ci benn diine amul ci diine amul ci ngor amul ci civilisation parce que nit ñi war nañ civiliser bu njëkk xale yee ko daan moom xale yi ñu daan taajiboon xale yee ko daan def xale yu ndaw yor seeni pot di tëgg dugg ci kër yi sël moo dóom ñoo ko daan def bu njëkk léegi dem nañ ba ay mag yi jëmm koy def ay góor ki jigéen eh, ku ne niru sa morom ñu topp di fecc di tëgg eh, dem ci këru jàmbur pour ut loo am yooyu yëpp dafa nekkul loo xam ne lu rafet la su ko defee daal jeexal at daal liñ ci xam mooy nit ki dafay nafar li wees liñ ci xam itam boo commencé at nga fas yéene lépp baax loolu daal moo am solo ci tam waaye du sàcc du tëgg du fecc déedéet at mu jeex la kañ lay jeex altine su ma ko doon misaal ci juddu yonent Yàlla Isa dama naan la 31 décembre mooy fin at bi ci la at mi jeex 1er janvier ci la at commencé kon at jeex na ñu commencé at waaw at jeex na commencé at donc loolu la bi itam euh, nu mu tudd altine la at mi jeex talaata mooy le premier te it yonent bi alayhi salaatu wa salaam biñ gàddaayee. dem euh, Madinatu Munawara imaamu Ali ci jalooreem ci njàmbaaram ci effort yi mu def booleeg Makka dafa bari xeer booba tàng bi mu ñëwee tànk yëpp di nàcc yonent bi ñeewante ko mu daal ne baaraamam yi danga nga naan naafiq yow baaraam bi maag yow dañoo daje ci yoonu yàlla rek kon nàcc bi ngay nàcc amul solo yooyu nag mu wax euh, bàkk yàlla wane ne nit lu ko dal ci yoonu yàlla dagan na ak lu ko ca dal ndam la ak lu ko ca dal bànneex la loolu il faut nit ñi di ko xam Assane ji nga euh, Assane boo seetloo par exemple saaba yi Aboubacar rek lañ ca reyul Ali dañ ko rey Ousmane dañ ko rey Omar dañ ko rey benn Ababacar rek lañ reyul islaam maanaam baax baax baax ak bëgg lu baax mu amul noflaay parce que du yow lañ bañ baax maanaam gis nga baax moo am noon mais nit amul noon mbon moo am noonu mais nit amul noonu parce que ki tux romb la wala mu màndi nga ni cim xoolal na rek màndi gaa soof ki la rombit asan yiw ne cim soof rek yiw ga mu def moo moo la soof mais bu asan def yoruloon kur demul julli doone dafa soof kon ne nit ñi xàmmee bañ nit ak bañ la ci nit ka waaw bañ nit ak bañ la ci nit diine daf la war a jaral ne su la ko jaralee rek jeex na mais bu fekkee nag diine jaralu la yenn yi alim na bi taal daf ne baaraam bi ma anti ila isbuin demiti wa fi sabilillahi ma laqiti daf ne baaraam bi doo dara nàcc gi dara baaraam nga rek maa yow dañoo daje ci yoonu yàlla kon lu la ci daal muñ ko lu ma ci daal muñ ko ñoo bokk yàlla ji donc lu am solo la ci la Seydina Omar xool nag daal di wax yonent bi ne ko lii de jar naa bind ndax xale yi ñëw ëllëg ak mag ñi ñëw ñu jàng ci ndax lii effort yi daal jar na bind ariqoo amral muslimin ñu daal di bind histoire bi nag gàddaay gi mooy jeex moom mooy nekk nag bis biñ ko bindoon mooy talaata at mi jeex altine talaata na nga am at mu bees soo demee ci beneen at bi muy ñu naan 2019 euh, maanaam juddu yonent Yàlla Isaa la ñu jël bu dee ci at mi ñu jël gàddaay yonent bi jeex na lii rek la c'est pas compliqué garaawul mais xam nga Sénégal moom mu ngi noonu rek ñun moom bu ñu xëyee te amuñu lu ñu wax rek bégguñu maanaam suñu doos bu bare mooy wax baax rek na problème am sa sëñ Saliou am na problème Iran toog fee Ndooy toog fële Assane Diop toog Tafa euh, Thian toog fële ak Saliou ñu naan waaw jàppal sa sëñ Saliou jàppal jàppal rek ba jant bi so su kooku fégalee maanaam ku aye boo fégalee rek am na beneen jongo mu war a ayewaat keneen ko am problème rek ay songati ko donc loolu réew moom boo ca nekkee te yàlla defalu la maturité mën ngaa dem ba am gàllankoor dem ba am gàllankoor donc boo bokkee ci réew mu mel noonu lan mooy noonu mooy fexeel ba yow doxal rek li ngay dox gëmal li nga gëm nee ci li nga ne mais jàpp leen ne tamxarit at mu jeex la waaw ci la ñu reyoon itam Xuseyn doomu Ali ibn Abi Talib ak Fatimatu bint Rasul ko ñuy wax Amru ibn si Juush moo ko rey dëgg ci dënnam mu añ ko añ yeelam xool gis li fi sëq lipp ak karaw Useynu téye ci ne ko borom wëqu mbaam wii lañ ma waxoon ne moo may rey ndax daa sëq lépp kii lañ ma waxoon ne moo may rey avant ñu koy rey rey na lu bari rey na lu bari ci bis bi la amoon waaw muy talaata bi waaye ci la yonent bi yegg ma madinatu munawara waaye ci la yonent yàlla Ibrahima am xarit ci bis boobu la yàlla def Ibrahima xarit ci la ko ko nommé nomination Ibrahima bisu tam xarit la muy mardi wattaxazallaahu Ibrahima xalila waaw gis nga asan <laughs> ku deful li gaa yi def mënoo am li gaa yi am fu lislaam noonu la tëdd day ba day métti fii neex fee képp koo xam ne oustaz Diène daf ma waxoon ne ma Ibrahima soo bëggee sa àdduna neex xam nga nooy def ma ne ko déedéet mu ne ma jàppal ne du neex soo jàppee ne du neex rek neex na waaye boo jàppee Ibrahima ne day neex toujours wala day baax bu naqaree rek mu métti ci yow wax na dëgg donc jullit yëpp fii la ñu jaar xoola ñu rey ci Xuseyn yonent bi gàddaay ci yegg màgg fa la nopp Madina fa la amee jàmm waaw fa la amee jàmm nga gis yonent yàlla Ibrahima ci lañ ko nommé xarit wa taxasa Ibrahima xalila yàlla nee na maa jël Ibrahima def ko xarit ñu ne ko lu tax mu ne li xarit di jëriñ xarit la def. maa jaral ñu di ko lakk maa ko jaral mu ñàkk ndeyam maa ko jaral mu bàyyi baayam maa jaral mu gàddaay fa mu dëkk man dong la ko ñor mu ne inni zaahibun ila rabbi sa yahdini kon damay xaar nag le premier ma nome ko ci ko def na xarit <clears throat> Ibrahim Khalilullah ñu jël Moussa muy kalim Isa di ruux seetal yàlla ni mu tërale Muhammad Habib waaye Ibrahima nag mooy xalilullah moom alxuraan ko tudd wa Ibrahima xalila tër na doomam bar ko reyal yàlla te lu mu gëm la wëlbatiku nu ñu dugal ko safara mu nangu nanguti lakkul baayam gedd na ko ak yaayam ñu génn ko mu muñ ko ñu wax ko mu ni fii yàllaa fi ne fii daal yàllaa fi ne ku am yàlla loo ñàkkati doo ko yëg ca bis boobu muy talaata bii ci lañ ko ko nommé mu nekk nag xaritu suñu borom daara tardeelul yéen teel Ibrahim bés dafa jël or bi mu am yëpp takkal ko xaj collier ñu topp dëkk bi daw yéen teel Ibrahim ñu ne ko Ibrahima lii lan la mu ne alalu àdduna medd la te medd xaja ko moom. yujaasibuhaa kilaab seetal kooku bokkul ak Assane Diop Assane bu jotoon ci or boobu àdduna tukki mais Ibrahima dafa jël xaj yi takkal leen or yi collier yi foo seen xaj mu ngi naan yang yang seeni or yi seen baat Ibrahima lii lan la mu ni mid mid xaj a koy lekk alali àdduna mid la moo tax ma takkal ko xaj yàlla xam ni Euh, waaye ma Ibrahima xëy bis sunu borom arini kayfa tuxil mawta damaa bëgg nga wax ma nooy dekkale ne ko awalam tuumin yaa Ibrahima xanaa danga maa gëmul mu ne ko an ah, kay ballee walakin la yatma inna qalbi gëm naa la lool waaye confirmation ci sama ngëm laa bëgg mu gën a dëgër yàlla ne ko wutal ñeenti rab yu bokkul mu wut ñeenti rab yu bokkul mu rendi leen suqi leen daggate leen menacé leen jaxase mu ne ko def ko ñeenti cër mu def ko ñeenti cër mu ne ko tegal benn bu ne ci kaw garab wala ci montagne mu te fu ne benn saam mu ne ko óol tuure rab yi mu ne petax cokeer naat kanaara doggutu yàpp wu ne jógee fa mu ne fekk morom ma fekk moroom ma ba picc mu ci ne mat picc ne dung comme lu ñu sukk dunq yi ñëw di roofee di roofee di roofee ba mat sëkk li may ay xisa de alxuraan ay wax de ba ñu pare picc yëpp ne lëpp lépp naaw daj taxaw ci kaw montagne bi ibrahim Ibrahima ne ëskay daal di sujjoot yàlla ne ko nii laa leen di dekkale fu ñu suul nit fu yaxam ne fu deram ne fu weyam ne fu karawam ne bis bu ma ko soxlaa dama naan Assane Diop ne jomm sama kanam seetal loolu ci bis bii di tamxarit di àllarba ci lañ ko nommé loolu def ko xarit bato yont yàlla noox ba ci la costé ñi ak jullit yi ci nekkoon ñépp mucc ñee alku donc bis la boo xam ne sëñ Assane li ci laxasu ci ngëneel dafa bëri saraxe ci baax na day dàq ñàkk sa njaboot nga togg lu bari ñu lekk baax na dina tax sa sa gën a yaatu yenent bi nee na fexe ba bul mer ca bés ba asan boo góorgóorloo ba bésu asura di talaata meroo at mi yëpp dootul am loo naqari su ngeen ne boo ngeen bàyyi seen ñu fuññuréel yi nekk ak seen tàng xol yii bu bés baa ngeen di ree lu ñor ngeen ree lu ñorul ngeen maanaam pour rek eh, eh, li yenent bi digi ngeen man ko am waaye boo ko deful doo dem alors que loolu c'est très important que nit ki xam ko kon nag Ashura ah, Taasua mooy altine mooy ci la at bi jeex Ashura ah, mooy talaata ci mooy le premier ci la ñuy départ ko defee loolu rek la euh, ñu góorgóorlu ci lu ci waay jaamu ci yàlla xeebal loo mën ci ay qul huwallaahu ahad nga jàng ko ba tey baax na lu mu bëri miin lañ ci bëgg ah boo jàng boo ko mënee jàng